Assalamualaikum, asalaamaaleykum waa Sénégal man la Thioune Boutique borom kontaan naa ci abonné kontaan naa ci gars yi déglu leen ki may woppat déglu leen. wa naka si jàmm naka yaram bi mbaa deful dara alhamdulilah. numéro bi ma la envoyé nii moom laa bëgg nga sama frère la mais comme day deuguer deuguer lu fit naan nervi la te fi ne ni ngi toll ci recherche nervi yi. gaay yi ko dégg jamono ji dañu nekk ci wër nervi yi pour japp len léegi nag moom nee na fu mu dem rek daan nerf la nee dañoo demoon Tiwaawoon gàmm gi neena gaa gars yi di werante werante affaire Macky Sall ak yooyu nee mu ëpp fa kàddu nag déglu leen am na kom fa joxoon numéro am ci kooku nag laa koy jaar nee naa ko jaar ci kam joxante woon ay contact am déglu na moom yéen ñu laaj day communiqué maa ngi ziar na nga def sëñ bi waaw yaa ngi ci jàmm daa mel bañ jëlante ay numéro ba léegi déggante wuñu de Euh, man nga dajaloon Tiwaawoon euh, te nga naan ma nervi nga te ñu jëlantoon ay contact waaye sant naka yaram yi. waaw sant ni tawfeex boobu ba léegi déggante. waaw boobu ba léegi boobu ba léegi yaa ngi ci jàmm baax. waaw tawfeex nii rek. dafa am sama benn xarit. bu ubbi bu defar kër gu mag léegi nag mu bëggoon ko ko nervi soxla koo xam nervi la woon man léegi sama xel ne yar ci yow ma ne ah yàlla doon nañu waxtaan nga ne ma nervi nga xaaral ma wala waaw loolu dëgg la moom loolu mm. dëgg la moom nerf bi tey parce que kii mati bi moom def na lu ne moom. ah yow nerf nga woon. waaw woon na Cheikh Tidiane kay ah. Ah, a booleeg yow. Mhm, loolu kay loolu kay moom fu nekk dugg na moom. waaw ah, kay léegi sëñ bi loolu laa bëggoon a xam. Euh, ndax man du ma jàpp nit ci mhm. te duma tëj nit ci te duma japp nit te amo preuve ci naka non wa man la commanda jeju commanda lan wa man la commanda djéju ndax dañ ma dañ ma la signal depuis gamu ga wa dañ ma la signal depuis gamu ga ngéné nerf nga man sa way won na cheikh tidiane man duma nerf duma dara deglu ma rek deglu ma rek lek xaliss wa comme que da nga non soob nak do ñew ba ci fi nga soobé ko mais li nga waxon wa wa wa wi mo wi mo sa way wóor na Cheikh Tidiane du du du moom néew bi wóor na yàlla du Subuh. néew bi léegi xam nga def waaw euh, suba ci midi suba lan da nga ñëw police centrale déet sa waay déet sa waay xoolal sa waay jàpp ci rek jàpp ci rek damaa njaboot de sa waay njaboot de jàpp ci rek wóor na du du bi yow ñaata nga def ci Il dit, ça va être mon avis, pour ne faire rien de